asalaamaaleykum mbokk internet yi dalee nag jàmm ñu di ak ci xibaaru 5 TV xibaaru tey ji nag dañu koy dooree ak kawteef ba am fële ca caajaay foofa nag benn xale bu jigéen buy wuyoo ci turu Ami Fall lañu fa fekk mu daal di dee ñoo ngi xamle ne nag xale bu jigéen boobu dafa xaru ginnaaw bi ñu fekkee mu takku ci benn buum ak benn garab ñu sës ci xale bu jigéen bi nag ñoo ngi xamal ne kii di Ami fal dafa amee woon problème mu xel maanaam àndul woon ak sagoom xale février 2003 nekkoon ci classe terminale ñu wax ci Fatou Kiné Ndiaye di étudiante bi nekkoon ca Maroc te yoon tegoon ko loxo ginnaaw bi ñu ko doon toppee ci mbirum Sinébar te ñu doon xamal ne kii di Moussaha Mbeng moo ko dugaloon ci ay dàll ginnaaw bi ñu ko waxee ni ab yóbbante la moom Moussaha Mbeng nag ñu ngi xamal ne itam yoon teg na ko loxo ca Maroc fële ca benn ville bu ñuy woowee Agadir ginnaaw bu mu yëgee ni yoon mu ngi ci kawam foofu la daal di nekkoon nag lakkatu ko teg loxo mok yenen ñaari ndaw yu mu andalon ñu ñi xamal ba tey ki nga xamni mo nekkon Dakar te wara jot ci yobante bi yoon itam tek nako loxo état des affaires étrangères mo xamle nu ni mel ñu wax ci politique nguru Sénégal nak fas na amal élection locale ci at bi di ñew manam 2021 décision bi nak commission politique di dialogue national bi wara a tay tey ci teewaayu ku jëkk politique gi ñoo wara jël décision bi ni mel ba ki ki di njiitu rew bi Macky dajé na ak ñen ci waa bennoo ngir waxtaan ci li nga xam ni moo jëm ci dàkkum ndogalum élection locale yi ci ndaje bi doon am démb ci diggante délégation bu xalif général des mourides ak kujek politique gi ki nga xamante ni bi moo di njiital délégation bi di Serigne Bassirou Porokhane mu ngi xamle ne Serigne Mountakha Mbacké jàmm ak démocratie lay woote ci réew mi ndax yooyee ñaar benn mënul dem bàyyi moroomam ba tey mu ngi ñuy xamal ne ne xalif bi moo ngi wax ne képp ku yëngu ci politique am nga ku ci ànd ak yow ànd ak yow ku ci àndul wax leneen waaye du am réew du yëkkati ay ngànnaay lañu koy yoree am réew du politique moo koy doxalu même bu fekkee ne sax am na ca solo bu baree bari ku jeeg politique yi nag noppee guñu ndax ndaje bi doon amal démb ci teewaayu sëriñ Bass Mbacke Poroxaan ñoo ngi xam leen ne gën nañu booloo seen ay doore ngir jot ci li ñuy xeex ñoom nag li ñu bëgg mooy dellusiwaatum démocratie ci réewum Sénégal ak li nga xam ni moo di justice bu indépendant maanaam justice boo xam xamni du am par parparloo lépp lu xew daf koy doxale ci anam ya waré ñu jéxalé politique ak cadre Ismaïla Madior Fall mi fi nekkoon ministre bi ñu dénk walum yoon mom nak mo ngi xamle ne andena bu baax ci décision bi nga xamni mom la juge bi jël ci affaire Ousmane Sonko ndax bo xamé bo amé li nga xamante ni bi modi di négas ndiku do mëna génn réew mi dem fenn waye du la téré dox say soxla mom nak limu àndul ben yoon néna moy li nga xamante ni bi modi fay caution ngir jot sa liberté comme ni ko yenn réew yi di def faits yu ci mel ni États-Unis comme ni ñu koy defee bés bu nekk dañuy jeexalee xibaar yi ak wàllum wér-gi-yaram ak tolluwaayu mbas mi tey nag limu test yi ñu amal moo ngi toll ci junni ak juróom téeméer ak juróom benn test waaye nag ñu ngi xamal ne ñu am nañu téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ñoo ci positif am nañu juróom-ñaar fukk ak benn cas contact suivi maanaam ñi nga xam ni dañoo jaxasoo woon ak ñi am jàngoroy coronavirus bi am nañu téeméer ak juróom-ñaar cas issus de la transmission transmission communautaire maanaam ñi nga xam ne am nañu jàngoro ji te kenn xamul fan lañ ko jëlee ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent wër nañu ba war a génn ci loxoy docteur tey ji nag fanweer ak benn ñoo nekk fee nga xam ni moo di Sowétas am nañu ñett ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakkeen ci jàngoro yi coronavirus ji ci bésu tey ji ñi nga xam ni nag ñoo nekk ci loxoy docteur ñu ngi xamal ne ne ñoo ngi am tan ministre bi ñu dénk wàllu wér-gi-yaram moo ngi sàkku ci askan wi ñu gën a topp digle yi te maytu tere yi li ci xibaaru tey jii di rafetlu seen ànd ak 5 TV di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen xibaar.